kon ñu ñëwaat ci beneen jataay ak yéen ci même rubrique bi te mooy euh, majalisul ulama sualun wa jawaab ñu delloo ko ci tariqa cheikh ahmada tidiane chérif ñu dellu siwaat ak fadilatul imam alaaji omar diagne al imam akbar ko defee ñu dellu siwaat di ko laaj nag ci tariqa cheikh tidiane chérif tariqa bi borom tarixa bi mooy Cheikhu Tidiane Chérif kañ la jot garaat bi ñu tuddee alxadmiyatu ban année la yegg ci maxamal alqutbaniyatul uzma ak lan mooy farq bayna alkatmiyatu wal xatmiyatu loolu nga indi nañ ci ay leeral fadilatu cheikh bismillah alhamdulilahi rabbil alamin fadilat al imam laaj nga laaj bu rëy laaj boo xamante ni dëgg-dëgg lu jara leeral la ndax dafa am lu bari lu mu ëmb te mu am tey jii ñoo xamante ni dëgg-dëgg seen xam-xam soriwul seen jàng bëttul xataa seen baat lugatul arabiya sax bëttul ba ñu mën a xam lii nga xamante ni mooy waxu Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu te terewul ñu ngi jóg di ko wax ne dañ koy jéem a diingat Mawlana Cheikhana Tidiane ci ni ko yàlla bindee mu nekk ab sharif comme niñ ko xamee noonu la nekkee jàngkat nekk boroom xam-xam wër nag ci àdduna bi toogul c'est-à-dire gannaaw bi mu jàngee xam-xamu téere xam-xamu sharia jàng xam-xamu dajan dajanteeg walu yàlla yi mais dafa génn dox dem Tunisie dem Égypte dem Maroc jamono jooju moom mi ngi dëkk wax naa la mi ngi dëkk Algérie jóge fa dem Makka dellu siwaat loolu yëpp tax wootewul ni moom moo am xatmiyatu wala katmiyatu ba yàlla dimbale ko mu am quarante six ans quarante boo calculer quarante six daf lay jox waliyu mu toll ci quarante six ans mooy mat na góor dëgg-dëgg ndax foofu la nit di toll ci quarante ans soog nekk nabi ji mu teg ci six ans pour yore wilaayatu quarante six ans boobu bi mu ko amee ci ama rachid muy gàddaay gi bi mu amee mille deux ci la am maqaama bu ñuy tuddee xatmiyatu xatmiyatu mi ngi ko am ci weeru muharram ci fukki fan ya ak ñaar moom la borom mun ye di wax naan wa fi lmuharrami gada gawsan rachid xalifatan an almuhaymin almajid uctiya daaka cheikhana bi arafa xakaahu man xaqaqahu wa arafa man sayid alxaaji ali xarazim barrada mi nga xamante ni teewoon na guddi googu loolu xam naa ni émission la moom ci boppam rek loolu waxtaan boobu woo fil muharrami gada mu wane ni Cheikhna Tijaani radiallahu anhu mi ngi jot ko ci ci weeru muharram ci fukk fan ya ak ñaar loolu mi ngi tollook aama rachid mooy atu junni ak fukk ak ñaari téeméer ak fukk ak ñeent mu jot maqaama xatmiyatu xatmiyatu nag ba ko Cheikh jote Tijaani ba tey waliyu yàlla bu yàlla bind taxawuloo nga ni man maay boroom xatmiyatu bee Cheikh Tidiane doon wax muy xatmiyatul muhammadiya xam nga xatmiyatu yi xatamaat yi bari nañ xatamaatu Isa xatamaatu Ibrahima xatamaatu nangam yeneen wala yi ñeme nañoo wane loolu waaye xatmiyatu bi nga xamante ne mooy xatmul nubuwati bu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xatmul wilayati boobu ci loxo Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la ko yàlla teg kenn woote wu ko ba tey jii nii ah wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al-azizi al-muntaqa maqaamuhu al-maktuumu an kulli al-wara siwa an-nabi ma waraahu wara ci même at boobu muharram romb lu ci topp safar weeru safar bi nag ñëw ba am fukki fan ak juróom-ñett ñu safar nga xool muharram fukki fan ak fan ak juróom-ñett ci safar mu jox la fan weeri fan ak juróom-benn hmm. tey ci la jot nag maqaama kët mi yetu boobu nga xamante ni moom ci bappam sax dafa réeree maqaama bi ndax rëy gu maqaama bi rëy yàlla moo ko xam ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ abbas sall rahmatullahi alayhi ba muy tàgg seydil xaaji malik si radiallahu anhu ci wala falam bi cheikhu siyuuxi seeduñu gaa yi fi raw moo siiwee topp sunna moom la góor ñu naw ba mu demee ba ci biir wax ji ma bëgg wax ji jeex parce que dafa jël xulafaa u cheikh yi mu ne wallahi may giñ te ma xam lan mooy giñ ni cheikhana kenn du ko xam yàllaay bañ ñaara ko xam muy yàlla ak yonent bi jeex na ñuy am fii tey xanaa beneen ba <laughs> muy wax ji jeex wax ji ferenku laay Seexna Tijaani ñaar ñoo ko xam muy yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Seexu Tijaani sax maqaama xatmiyatu ak katmiyatu ni mu toll ci yàlla ni mu toll ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeral luñ ko lépp ba mu jeex moo tax ba muy wax waxam juree ja naan qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyillahi taala min ladun aadama ila nafxi fi suur gars yi ñenn ñi ñu ngi koy weddi naan lu tax mu naan min ladun aadama ila nafxi fi suur ma ne leen ñii ñoo dof te ñàkk bañ a jàng te ñàkk bañ a xam ni yàlla dafay mbiram maam aadama wilaaya gi mu yore ci nubuwa ci kan la yam di jóge yoon ci yàlla isa loolu mooy tudd uh, annubuwatul aama léegi nubuwatul xaasa kan moo ko yor yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag wilaayatu keroog la ubbeeku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ubbi wilaaya moo tax nga naan muhammadinil fatihi lima al fatihi lima ughliqa moo ubbi eh, li ñuy tuddee al wilayatul uzma kan moo nekk ci kaw Cheikh Sidi Ahmed Tidiane rad moo tax mu ne xadama yaa haataani sama ndëggal tànk yi ñaari yëpp teg naa ko ci ndoddal walu yu yàlla yëpp ndaxte maa yore xatmiyatu ci loxo bi maa yore katmiyatu ci tànk bi tànk bii moo yore xatmiyatu tànk bii moo yore katmiyatu xoolal demal ci fatiha looy wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mufassiruna yëpp nee na na'budu googu mooy sharia nasta'inu wala mooy xaqiqa léegi nag lépp loo gis rek ñaa yàlla ñaar la ci bind tabarakallahu Cheikh na Tijaani radiyallahu anhu yàlla nag may ko mu yore ñaari maqaama yooyu ba Cheikh Ahmad Tidiane jógee fi ba léegi dégg nga kenn ku ñu naan Maktoum ku dul sëñ Cheikh mi lu tax ñu koy wax Maktoum ndax liñ ko tuddee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mu dippi ko ci lépp benn waaye mas na ma wax mu ne ma wallahi seen seen seen seen maqa seen sëriñ bi yéem na ma ma ne ko lum la yéeme mu ne liñ koy wax Maktoum dëgg la ma ne ko waaw mu ne moom mi ngi nëbbutu rek kenn xamul fu mu nekk te taalibe yaa ngi koy gën a topp nit affaire am ngi dox lépp a ngi dox beneen sëriñ bi fi tëju woon weer génnuloo kenn gisu la boo génnee kenn du la top da ngay ñàkk ay taalibe ma ne waaw moom maktuum lañ ko tuddee radiallahu anhu wa ardahu wa anna bihi amin su ko defee xaaj eh, Cheikh na daal mi ngi nii mooy góor gi nga xamante ne nag ah ku neex nga tag sa sëriñ nag neex nga waxal sa sëriñ lu la neex waaye dëgg gi moom mooy lii waaw kon jazakumullah rabbil alamina oustaz xanaa di leen sant di leen gërëm ci opportunité bi nga xamante ni may ngeen ñu ko ngir ñu mën a waxtaane Mawlana Cheikhna Sid Ahmed Tidiane comme niñ ko xamee wa bi dicri salihin tatanazzalu rahmat waxtaane nit yàlla yu baax yi ku mel ni Cheikhna Tidiane yi ak ay xulafaam ak muqaddamam yi waxtaane leen yàlla dafay wàccee yurmandeem ndax xol yi dafay féex dafay leer te dañuy wax ni nit koy waxtaane taarixam rek yow yaa ngi dundal dafa jot ngir nit ñi xam kan mooy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ndax njaxas mi dafa bari te ku nekk da ngay xëcc jëmali sa bopp ñuy woo ay ñeneen ñi ci caaxaan te Cheikhna Tidiane yi su amee taalibe bu tol ni Seydi El Hadji Malick am taalibe bu tey ni Cheikh El Hadji am taalibe bu tol ni Seydi Mouhamadul Ghali wallahi kenn mënul indi ku mel ni kooku léegi nag indil ma leen doon ñoom ci suuf ba ci jamono jiite ñi nga xamante ne tey jii dañu fi taxawal tariqatu cheikhana Sidi Ahmed Tidiane kan nga ciy xool xeeb ko ci shari'am wala nga xeeb ko ci xaqiqaam kenn kon nag ñi ngi lay sant di la gërëm ak technicien yu am njëriñ yi nga àndal tabarakallah di ñaan yàlla site bi yàlla na ko yàlla doxal bu baax yàlla def ci qabul incha allahu taala te incha allah loolu mooy am ndax ki ñuy waxtaane moom ak ñi mu ñi mu njaboote la garwa lu baax rek ngeen ni am incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf oustaz kon mbokk yi ñu jox leeraat leen beneen rendez-vous incha allah ci même rubrique bi te mooy majalisul ulama ku ko ku bugg xam nag suite bi incha allah na nga seet nanga nga ko dégluwaat incha allahu yàlla ñu yàlla defal tawfiq bu ñu ñëwaatee nag ci la ñuy dugg dëgg-dëgg nag ci awraat yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy zikr fan lañ ko teg lañ mooy dalil bi ci alquran ak lan mooy dalil bi ci hadis incha allah yooyu mooy nekk ci émission yi ñëw yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm am ci lu leer am na ci lu leer ko defee fii la ñuy taxawandi ci émission bi boo beneen jataay ci ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi majalisul ulama su'aalun wa jawaab te ñu amoon jataay ak sunu ustaaz sunu imam fadilal cheikh alaaji Omar Diagne ko defee ñu gërëm ñiy seetaan émission bi gërëm sunu caméraman bi waaye gërëm ki nga xam ne mooy eh, kilifa ci site bi te mooy Souleymane Ba kon bu ko defee ñu ñaan rek yal na yàlla defal ñu jàmm lépp lu ñuy yaakaar ci xadara bi yal na ñu ko yàlla defal bu ko defee ñuy bàyyi ak oustaz mu indi ay baatu tàggoom boo ci beneen émission incha allah. maa maa salaam jazaakalla xayran xaaji ma amin ya rabal alamin ya rabal alamin ya rabal alamin tijaani ya rabal alamin tijaani amin wa iyaakum incha allah incha allah tijaani